yal nañu yàlla boole ci ñi xam ne am nañu bi kamaalil imaani ngëm gu mat sëkk amin kamaalil anbiyaahi na ma ko defe woon ca ñoñu solo ña di yonent amin wal awliyaa na mu koy defe ca wàllu ya yal na ko defe noonu ci nun amin xayril maxduubi alayhim yàlla bu nu yàlla boole ci yoon wa nga xam ne ku fa danga nga danga da nga am rem yàlla ab tooñkat ngay doon yàlla bu nu yàlla boole ca ñooña amin ay laa siraata lazina xadabta alayhim yow sunu borom yàlla boonu teg ca yoon woo xam ne ña jaar danga nga leen a yow sunu borom amin ñun julliti amin yàlla boonu ca boole kal yahoodi naka mu dale yahooti ya yàlla nañ ci yàlla musal wa nasaraani ak namu mu dale nasaraani ya yel nañ ci yàlla musal wala daaliina yàlla boonu teg ca yoonu way sànku ya amiin ay wala vailiina yàlla boonu boole ca way gëlëm ya amiin waxum ñoom ñooñee xaw mun aw nit lañu ñoo xam ne addalahum laahu yàlla moo leen gëlëm loo an tariqal hidayati ba ñu bañ a jaar ci yoonu gindeeku wi muy lislaam ña nga jëm ilaa tariixi dalalati jëm ca yoonu wuy gëlëm ya yoonu wuy réer ya kal muhtazalati ba mel ni kuréel ba muhtazalati ña xam ne seen ak gëm yàlla gëm yàlla gu suufe la wal jabriyati ak ña nga xam ne seen gëm yàlla gëm yàlla gu suufe la kuréel booba wal xadriyati ak kuréel ab xadriyati ñoo xam ne tamit seen a gëm yàlla gëm yàlla gu suufe la yeel nañu yàlla musal ci ñetti kuréel yooyu ñun jullit yépp amiin yal na yàlla nangoo sëriñ Tuubaa nee nanga waxlam na nga xam ne annal fatihata naka saar yu ñuy woowee fatiha muy bismillahi rahmaani rahimi ba mu jeex mustamilatun ala saahiril hurufi dafa lambo ca mbooleem araf ya mahada sabhatan ludul ludul juróomi yaari araf juróomi yaari araf yooyu nag rufin ay araf la yoo xam ne man xóotatin dañoo am ay tomb waaye juróomi yaari araf yooyu nga xam ne dañoo am ay tomb nekkuñu ci fatiha wahiya juróom ñaari araf yooyu nag na nga jàpp lii la ciy joxoñ aljiimu baatab jiin nekkul ci fatiha wal xaa ak xaa go xaadem dellu lañ ko binde nekkul ci fatiha wazaayu ak raasiin nekkul ci fatiha wataa u ak ñetti tomb ñu di ko wax ci nekkul ci fatiha wathaa'u ak taat siin nekkul ci fatiha walfaa'u ak faa nekkul ci fatiha wassiinu ak siin guñu amal ñetti tomb ca kaw muy siin su tooy nekkul ci fatiha wa innama muniha min ityaaniha yooyu dañu leen a ñàkk tabal ci fatiha baat yooyu dañu leen a bañ a def fiha ci fatiha ndax li annahum naka araf yooyu nazaloo dañoo wàcc bil wahiidi indi ki tëkku oh waxuwa baat yooyu sarru baat yoo xam ne bu ci ne dañoo ànd ay ay dañoo yor ay ay di baati ay di araf yi yooyu song ay ñu di leen jariñoo ngir bind aw ay baat yooyu muy araf yooyu moo tax indi wuñu leen ci fatiha aywa xoolal fii ñu lay joxoñ wa maxnaal jiimi maanaam jiim maa xoosu min tajazzi ña ngi ko jàppee ci ak sukk te waxu sukk googa suqootu àllaa rukbatayni mooy sukk sa ñaari bëti hóom finnaari ci sawara juziyan ñuy boroom ak sukk ay la mu bëgg wax mooy saaqitiina boroom ak rot lañu àlla rukko bihim sukk ci seeni wóom finnaari ca biir sawara kon araf woowu loolu lay joxoñ moo tax indiwuñu ko ca fatiha wa daabitul fatihati ki takk ba mokkal fatiha wa mahaaniha ba mokkal ay maanaam laa yasqutu du sukk maanaam du wàcc ala rukbatayhi ak ñaari bëti woomam fi ca sawara yàlla du ko cay musal ndeysaan benn araf jàll na wa mahnaal xaa'i maanaam xaadem dellu ga maa xawsun lu ñu jàppe la minal xaybati ci ak pert mu yaakaar ju tas li xaw lii dëppook waxe sunu borom ja taalaa kay aji kowe waxad xaaba pert na man dazaha ñanuroon ca seen bakkan xaabat sooy nañu waxasirat te perte nañu nafsun ca seen bopp afdahaha laahu yàlla gàcceel na leen keroog taxawaay yowmal xiyaam yéel na ne yàlla musal ca ñoom yaa ngi jàng Majmahun Nurayni téereb Sëriñ Tuubaa bi ñu dajale yaari leer yi